jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu euh, rajo réew mi euh, FM Euh, mbokki ñu leen di jaajëfal bu baax a baax dem mbégteeg euh, kontante si yéen ñi nga xam ne saa su nekk yéen ñuy topp ci euh, émission pencum réew mi ngeen di ànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu dellu am mbégte bëgg a waxtaan ak Aliou jiba Aliou Djiba nag moom mu bokk ci cadre yi nekk ci parti bi di PDS waaye moom mooy secretaire administratif section PDS Golf Sud moom mooy njiitul ki yor moo lépp loo xam ne daal jëm na ci wàllum informel ci comité électoral ville de Guédiawaye nekk tamit euh, membre ci euh, ci commission communication bu euh, PDS Aliou Djiba moom la ñu fas yéene seqal waxtaan Aliou maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay nuyu Abdou Khadre di la jaajëfal bu baax si invitation bi nga ma defal tey. et di la ñaanal jàmm wér ak gudd fan ñaanal ko bépp auditeur bi nga xam ne mu ngi ñuy déglu tey. Aliou Djiba euh, ñun ñoo ngi am mbégte bu baax a baax a baax euh, ci yow vraiment ci wuy si invitation bi ndax yow euh, gis nañu ne saa suñu la soxlaa pour inviter la pour waxtaan ak yow danga ñu koy yombalal te peut-être sa activité mooy la ko ndax euh, da ngay jàngale mais euh, saa suñu la bëggee invité daal dafay nekk lu yomb si ñun vraiment loolu tamit euh, ñun ñu si am mbégte ak kontaante bu baax a baax Aliou Djiba léegi nag plaisir pour moi. Mhm. ok Aliou waxtaan bi fi ñu koy dooree rek mooy li tax ñu invité la sax mooy lu jëm ci élection locale yi ak PDS waaye comme actualité bi dafa am mooy scandale wàllum Miss Sénégal Aliou scandale boobu yaa ngi koy suivre yow lan moo ci sa xalaat Aliou. Euh, man lii sama xalaat euh, si scandale boobu vraiment euh, c'est avec tristesse laa si am ba ma dégluwee affaire bi li ma njëkk xalaat mooy waajuro bi ñoom laa njëkk yërëm mais il faut reconnaître que li am nii yàgg na fi am parce que boo dégluwee tous les intervenants yi nga xam ne ñoom ñoo wax si mbir dafay montrer ni lii yàgg na fi am mais c'est-à-dire on n'a pas l'État n'a pas mis les moyens pour savoir lan moo xew si biir donc responsabilité yi il faut les situer également responsabilité c'est des faut pour pour les parents parce que parents yi également waroon nañu euh, protéger seen dom parce que milieu showbiz moo mel noonu euh, ku si bay sa doom nga dem ñu koy ñu koy ñuy wone li nga xam ne moom mooy cëram mais vraiment loolu dafa ñaaw parce que te loolu day attirer ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si public donc euh, conséquences yi dafa dafa dafa. waaw mais Aliou euh, xale yu jigéen yooyu euh, yaa ngi wax sànq ne ñu bari génn na ñu wax mais am na ñoo xam ne dal na leen deux mille 2016 2017 ba ñoo ngi si 2021 lan moo tax ñu am habitude boobu laa ko mën a tuddee maanaam mbir dal mu naqari la nga noppiwaale ko boo boo ko boo ko fësalul au moins nga mën si waxtaan ak sey waajur. waaw loolu il faut les condamner sur ça parce que nit affaire bu amee nu mu amee si même jour bi si ëllëg sa war nga ko mën a wax wala le même jour nga wax ko waroo mën a nëbb affaire bi ba tey waxoo ko bu benn affaire jógee rek nga ne da nga wax donc yow en parti tu es responsable parce que suñ ko waxoon ñoom it seen bopp mënoon nañu protéger ñi nga xam ne ñooy daal di ñëw si. Euh, euh, mooy mooy ñi mu jot a dal am na ñu wax. ki ko maanaam ki mu dal 2016. Euh, bu ko waxoon amaana du dal kii 2020 amaana du dal kii kii kii kii 2020 donc loolu day day day prévenir maanaam li nga xam ne mooy danger. bi nga xam ne moom la képp ki nga xam ne bokk nga si euh, lu mel noonu mooy élection mi si nga xam ni lii war mën na la si daal donc loolu moo tax ma ne ñoom dañu waroon a euh, tirer leçon boobu jàngal seeni sœur yi nga xam ne euh, ñooy ñëw pour dugg si lu mel noonu pour ñu mun leen aar si mooy li nga xam ne mais est jàpp nga ne yoon dina ko leeral bon si li ma jàpp je pense que yoon war na ko mën a leeral war na mën a leeral si benn fànn pour quand même protéger l'organisation bi nga xam ne ñooy organiser loolu et en même temps protéger ñi nga xam ne les futurs euh, filles yi nga xam ne ñooy ñëw dugg si loolu parce que suñ ko deful aussi dañuy foog ne képp ku def mel noonu dañ koy bàyyi mu jàll donc je pense que li may ñaan si nguur mi ak yoon nañu jéem a xool euh, saytu mbir mi ñu ñu ñu juger ko xool ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkul si dëgg ñu teg leen daan parce que lii vraiment dafa graaw te responsabilité bi incombe à tout le monde muy parents yi muy fii muy également l' état parce que l' état aussi il a les moyens quand même de savoir lépp li nga xam ne mi ngi si mi ngi si organisation boobu. d' accord donc suñ ko defoon nu ñu daan defee yeneen manifestation wala yeneen problème yu xew si biir xew mi kon je pense que lii dinañ ko mën a régler lu mu gënoon gaawee. d' accord mais defuñu ko donc ba tey donc euh, responsabilité dañoo situé wu donc euh, que ce les parents que ce soit mais également que ce soit euh, l'État bi nga xam ne moom moo gère moo suñu suñu kaaraange. d'accord jërëjëf euh, Aliou euh, Djiba yow nga nekk membre ci comité directeur PDS nga bokk ci cadre yi Aliou ñu bëgg a wax ci élection locale yi. Mm-hmm. ak coalition wàllu Sénégal. Mm-hmm. seen coalition boobu. Mm-hmm. ndax coalition la boo xam ne change bi bëri na Aliou ci élection locale yi. coalition boo xam ne dina mën a gagner maximum de communes maximum de grandes villes Aliou point d'interrogation tout tout à fait li nga wax ni c'est c'est c'est très c'est une très bonne question hein euh, gagner les loolu euh, euh, gis nañu ni lorsque le secteur national chargé des élections ak le secteur national en charge des mouvements et sa délégation ñu def le tour du pays dañoo dem ci ay dëkk gis les gens sont sortis majoritairement pour leur accueillir te ñu jàpp ne bu ñu defee suñu sondage def suñu liggéey mais jàpp nañu ni euh, majoritairement nous sommes nous pouvons gagner les élections euh, au Sénégal donc ma jàpp ni euh, muy grande ville muy petite muy commune ñun on est sûr qu'on va gagner inchallah la majorité n'est-ce pas des villes nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal parce que également euh, mënoon naat euh, parce que le parti démocratique sénégalais c'est un parti qui a fait vingt six ans d'opposition ah qui connaît quand même les rouages les techniques également de la politique donc moi je pense que. mais nattoo ko lu nattoo parti bu yàgg la. non nat non dama jàpp ni aujourd'hui parti démocratique sénégalais ça attire les gens parce que tey bu ñu commencé jaay carte yi Euh, dans dans les villes et dans les communes euh, si quartier yi fu mu demee noonu donc tout le monde se rue n'est-ce pas pour avoir cette carte parce que jàpp nañu ni euh, le parti démocratique sénégalais c'est la seule alternative bi nga xam ni capable aujourd'hui de de de de remplacer Macky et de faire dérouler son plan et que Ablaye Wade nous a nous a parce que. waa no mais Aliou man damaa gis ne da ngeen xaw a néew doole ci parti bi PDS loolu laa gis. non néew néewuñu doole noo jàppee néew doole yow. maanaam néew doole mooy ñu baree bari wàññeeku nañ ci parti bi Ablaye wadd sori na fi euh, Karim Wade aussi sori na fi par rapport ak ñu bari ñu génn biir PDS. waaw c'est vrai xam nga parti bi euh, Ablaye Wade c'est vrai n'est pas là Karim euh, ñu mi ngi jokkoo ak responsable bi mu war a jokkal mais ñu jàpp ni parti démocratique sénégalais c'est un appareil et képp ki nga xam ne yaay woon si parti démocratique sénégalais tey nga bay parti démocratique sénégalais dem si beneen parti. mais yow kese yaay donc yow kese yaay dem doo yóbbaale benn militant donc ce qui montre que le parti démocratique sénégalais c'est un parti vivant et et aussi aujourd'hui soo xoolee le parti démocratique sénégalais c'est le rajeunissement du parti parce que les jeunes ñu ngi dugg en masse dans le parti ñu ngi occupé tey boo xoolee la majeure partie des mairies yi nga xam ne ñoo nekk dans les commune dans les villes mais jeunes yi ñoo ñoo gën a ñoo ñoo gën a taxaw n'est-ce pas donc ñooñu c'est c'est pas c'est pas c'est pas euh, li nga xam ne c'est gratuit Donc c'est parce que le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti qui attire, c'est un parti qui qui qui euh, nga xam ne qui est l'alternative crédible aujourd'hui. Donc je pense que loolu moo tax nit ñi. mi non mais Aliou euh, élection législative yi passé Ablaye Wade ñëwoon na battre campagne et tout est-ce que du loolu moo leen mayoon doole ak euh, coalition bi ngeen àndaloon mais par rapport bu Ablaye Wade ñëwul Karim Wade deful benn communication bu defoon benn vidéo sax ne PDS nag mag mais loolu lépp amul. waaw dama jàpp ni Ablaye Wade euh, bu ñëwee par exemple euh, si campagne bu mënta doon euh, ñëpp ça ça va réveiller n'est-ce pas fibre bi nga xam ne mooy fibre parti démocratique sénégalais tey boo que loolu moo tax ma ne la le parti démocratique sénégalais bi nga xam ne vingt six ans d'opposition la def parti bi nga xam ne moo def vingt six ans d'opposition parti boobu du ay jaaxaan def douze ans au pouvoir huit aujourd'hui huit ans aujourd'hui dans l'opposition donc je pense que nous avons capitalisé nous avons nous avons capitalisé une expérience bi nga xam ne ñun suñu bopp n'est-ce pas que ça soit au niveau de la base que ça soit au niveau des des localités nous sommes implantés un peu partout donc mu mel ni ñun mu boo jëlee par exemple au niveau de Golf Sud le PDS est sociologiquement majoritaire parce que tey tey boo demee Golf Sud euh, à part euh, euh, coalition bu am ni léegi te tey incha allah on va les balaminer aux élections yi ñëw ñun jàpp nañu ni parti démocratique sénégalais partout à l'image de Golf Sud noonu la ñu mën a mel. waaw non mais mais Aliou non Aliou. Mm-hmm. bala ñoo eggale Golf Sud googu Aliou. wallu Sénégal man man mm-hmm. gisuma ne. mën naa mm-hmm. gagné benn bokk yaakaar ci Golf sid boo xam ne tey. Euh, Aïda Sow Diarra ma nga fa Lat Diop ma nga fa ak euh, Néné Fatoumata Tall ñoo ñu yor ay ndombay tànk euh, ngeen gañe leen ci Golf Sud lu may bett lay doon Aliou. waaw vous vous savez xam nga Lat Diop moom ak Aïda Sow Diawara ñoom ils sont comptables du bilan. de cette de cette de, leur euh, municipalité seen seen gestion. mais loolu moo tax ma ne la pour ngeen gañu ñooñu defi waaw waaw déglul parce que aussi euh, voter Lat Diop mooy accepter continuité bi am maanaam Aïda Sow Diawara lu mu daan doxalee ñu continuer lu ñu daan doxalee te tey population Golf si dañoo bëgg rupture et soo xoolee bu baax tey Lat Diop tey dëkkul dëkkul Golf Sud. mais euh, mais Aliou yow yaa mën a xalaatee mais Aliou yow yaay xalaatee ne euh, boo voté lee Lat Diop yaa ngi cautionné li euh, li Aïssata Sow Diawara doon def yow mën nga ko wax en tant que politique mais est ce que sénégalais lambda ba fa dëkk moom gis-gis bu sori boobu nga am est ce que moom dina gis-gis boobu. mais évidemment parce que tey boo xoolee bu baax tey. au niveau de de Golf Sud tey. gestion Aïssata Sow Diawara ak Lat Diop ma comme ni ñuy waxee rek mburu et farine foofu ko góor ñoom ñëpp benn la Lat Diop égal Aïda Sow Diawara Aïda Sow Diawara égal Lat Diop. mais lu tax nga ne Lat Diop dëkkul lu tax nga ne Lat Diop dëkkul Géejawaay. Lat non seulement dëkkul Géejawaay euh, tey bu nekkee tey maire par exemple au niveau de de de la commune de Golf Sud. mais bu amee benn benn militant wala benn habitant de Golf Sud bi nga xam ne moom moo soxla dem fëgg buntam fekku ko fa mais il est évident que da koy boole ak ki nga xam ne mooy délégué mooy ki nga xam ne mooy son adjoint parce que tey Lat Diop avec sa charge bi nga xam ne moom la am en tant que DG de la LONASE mais <laughs> il est évident que son pouvoir il sera da délégué jox ko kenn ki nga xam ne moom mooy nekk avion muy doxal donc loolu moo tax ma ne la loolu mënul régler la situation de Golf Sud lii war a mën a régler la population la situation de Golf Sud c'est très simple ku mel ni Ngouda Diop Ngouda xam ne il a un parcours politique. kan mooy seen candidat foofu Nguuda Dione mooy suñu candidat mooy la grande mooy candidat la grande coalition wàllu Sénégal. Golf Sud Nguuda Dione Golf Sud waaye de Golf Sud Nguuda Dione c'est un euh, il a un parcours politique qui est membre du comité directeur du PDS il est secrétaire national du PDS au niveau du PDS il est membre de la FNCL et a été depuis longtemps au au CIS il est un ingénieur formateur en électrotechnique qui dit ingénieur dit compétence n'est-ce pas dit rigueur kii di formateur di pédagogue. donc nguur non fii ñu am rigueur am compétence euh, amum njàng ñooy dem élection ñeneen ñi battre leen ah Aliou. moom moom laa lay wax ni c'est-à-dire que euh, diriger une mairie n'est-ce pas il faut avoir un background kon ne peut pas diriger une mairie te amoo vision amoo background loolu mënul nekk. non mais background Aliou mais Aliou background boobu yow yaa koy xool mais askan bi li ñuy xool mooy kan moo leen gën a jege ci kan lañ gën a am yaakaar socialement kan mo gën a. nekk si askan bi bu doon bu doon askan bi ku leen gën a jege moom la ñu moom la ñu xalaat kon Nguuda Dione moo gën a jege askan bi kër Lat Diop parce que nee naa la Lat Diop dëkku ki nga xam ne dëkkoo fa nag yaa ngi feneen c'est vrai que euh, ay frère ay fële màggee fële kii mais dëkku Lat Diop habite ailleurs donc la population de Golf Sud a besoin des gens yi nga xam ne ñoom dañoo nekk euh, n'est-ce pas à proximité de la population nga xam ne suñu leen soxlee ñu daaj ku mel ni Ngouda il habite à Golf Sud ah donc tey bu ñu ko nommé maire il sera là pour nest pas les préoccupations de la commune de Golf Sud des habitants de la commune de Golf Sud Ngouda Dione nekk na nee naa la c'est un pédagogue kii di pédagogue va tirer, nest pas, sa politique de développement dans la formation des jeunes et dans l'insertion également des jeunes. Parce que formation professionnelle la def donc dans l'éducation de xam ne si domaine de compétence am si la bokk donc dina def en sorte que jeunes yi nga xam ne ñoo nekk dans la commune de Golf Sud ñu mun a am li nga xam ne jege askan boobu ngay jege askan boobu nga xam ne moom mooy seen liggéey Aliou jege askan boobu ngay wax bu ko laaj Diop deful tamit nee na Fatoumata Tall mënoon a defu ko wala Aïda Sow defu ko waaw xam nga tey euh, le problème li ngay posé nii c'est un c'est mooy c'est un problème de bilan au niveau de la commune de Golf tey bu ñu un bilan au niveau de la commune de Golf Sud dañuy ne bilan bi nga xam ne pas positif du tout parce que tey population Golf Sud gisuñu seen bopp si gouvernance Aïda Sow Diawara durant mandat yi nga xam ne moom la nekkee à la tête de cette euh, mairie Euh, Lat Diop il est conseiller à la mairie de Golf Sud c'est Benno Bokk Yaakaar donc ay ak Aïda Sow Diawara ñoom ñëpp ñoo bokk benn euh, benn coalition donc man pour man il euh, y pas de changement à ce niveau seulement il y aura de d'hommes mais pas de changement de politique c'est la même politique parce que nit boo nekkee ak moom di def politique ngeen bokk benn coalition gis lu baax pour sa askan war na ko mun a wax nit ki ah man de soo defee nii defee nii lii dina dox mais doo xaar dañu wàccee ko nga ne yow da bëgg a indi beneen politique loolu mooy man loolu laa jàpp ni loolu du ànd bu sincère te je pense que li nga xam ne moom laa jàpp tey Lat Diop tey bi nga xam ne moom la moom la mën a def lu mel ni Aliou Sall moom lay def lu mel ni également ñeneen ak ñeneen maire yi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar te bilan bi nga xam ne moom la ñu mën a tey tiré au niveau de la localité de Golf Sud mooy gis nañu ni en fait les la bande mooy li nga xam ne mooy littoral bi fi nga xam ne moom mooy fila côté filao yi ah donc euh, foofu yëpp gis nga ni ñu ko caax sa sa saaxe jël suuf si jox ko ñu leen neex donc population Guédiawaye bi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk te ñu war am seen wàll si mbir mi je pense que euh, ñooñu tey n'est-ce pas euh, dinañu si si si dañu danañ jooy parce que li nga xam ne moom la maire yi war def dans les zones comme ça Euh, les terres so gisee ñu koy jox par exemple la population c'est très simple te dañuy jàpp ni ñi nga xam ne ñoo dëkk si gox boobu euh, dem nañu benn euh, seen bara ñu par exemple ñun nga dëkk si benn kër paa yi dem ba xam ne yow mag nga léegi war nga mën a tàkk soxna et tout ça kër gi xat ñu dem déposer au niveau de la mairie mairie ne leen déposer ñu jox leen ay terre comme ça ñu mën a dëkk mais malheureusement au niveau de de de du département de Guédiawaye ça ne se passe pas comme ça les terres ont été n'est-ce pas vendagées jox leen ñu leen neex n'est-ce pas euh, loolu moo moo jaadu loolu moo tax ma ne le seul bilan qu'on peut retenir de Benno Bokk Yaakaar au niveau de la localité dans le département de Guédiawaye mooy nu ñu saax saaxee li nga xam ne mooy suñu suuf donc encore une fois Aïda Sow Diawara son bilan n'est pas reluisant euh, donc euh, Lat Diop wax naa la ko sànq mënul gérer commune de Golf Sud parce que il a une charge sur l'autre de la RONAS te loolu day délégué waat keneen kooku ñëw diriger te loolu ko mën yor d'accord Aliou Djibo Boulogne il la la commune ensemble voilà ngay euh, responsable PDS euh, Golf Sud mais change bi ngeen di am ci li ma jàpp bokk na ci euh, ñi frustré ndax Aïda Sow jaawara boo xoolee diggante mag Lat Diop hmm. Aïda Sow Diawara bi ñu investir Lat Diop am na ñooñam ñoo xam ne ñu si woon Lat hmm. Diop am na xeex bu yàgg bu dox digganteem ak Néné Fatoumata Tall est-ce que Néné Fatoumata même bu waxee ne ànd na ci est-ce que ay militants dinañu jël xob votel votel Lat Diop ne ay interrogation la est-ce que loolu mënu leen see profiter waaw ñun euh, xam nga euh, à toute chose euh, des fois en politique ah loolu tamit malheur est bon parce que des fois ñun Euh, on sait que Néné Fatoumata Tall avec euh, Lat Diop amoon nañu dualité en seen seen biir alors donc si les militants par exemple de Néné Fatoumata nga xam ne ñoom ils veulent quand même euh, changer avoir une rupture mais je pense que nous on les temps la mais parce que le PDS euh, c'est un parti bi nga xam ne leader au niveau la coalition euh, wàllu Sénégal au niveau de Golf Sud est majoritaire donc ñun on ñun leen di tendre la main. ñu ñëw yokkal ñu doole comme ça ñu euh, nga bokk ci cadre PDS yi mais wallu Sénégal mais Aliou sànq maa ngi lay laaj yenn grande ville Aliou tey par rapport man su ma gisee fu mel ni Dakar. man damay jàpp ne wàllu Sénégal Doudou Wade. euh, président Doudou Wade euh, pour mu gagner ville de Dakar vraiment face à Pape Diop face à Abdoulaye euh, Diouf Sarr euh, face à Barthélémy Diaz gagner Dakar dina nekk loo xam dina jafe PD wàllu Sénégal gagner Thiès. jàpp naa ne du yomb gagné Saint-Louis aussi gagné Kaolack gagné Ziguinchor wala gagné sax Louga Aliou très sincèrement grande ville yooyu nan la PDS def ba gagné ko dina ma jaaxal. waaw noonu xam nga li nga wax ni yow sa analyse bopp la mais mais moi je pense que la politique euh, c'est pas c'est pas c'est pas ça politique c'est autre chose wax naa la ko sax Euh, Nenal, nu on n'est pas la politique, euh, c'est différent de, de, ce que tu penses, parce que tey Doudou Wade personne ne s'attendait aujourd'hui que dina nekk candidat mais bu mu nekkee candidat gis nga élan de sympathie bi nga xam ne les Dakarois le lui ont donné donc loolu ñu ngi ciy sant yàlla parce que loolu aussi c'est le parti démocratique sénégalais moo ko liggéey ah donc Doudou Wade qui connaît Doudou Wade euh, c'est pas n'importe qui dans le parti démocratique sénégalais et que je lui souhaite vraiment une euh, une bonne Euh, le combat sera rude mais incha allah au finish euh, nous serons vainqueurs parce que man loolu laa gëm muy ndar li ngay wax noonu mon frère Mayoro moo fa nekk donc euh, jàpp nañu ni kenn ku si au niveau local boo liggéeyee je pense que tu peux gagner ta zone te yaakaar naa incha allah comme ni ma la ko waxee rek avec la tournée bi nga xam ne moom la parti bi def au fin fond du Sénégal gis nañu ni la majorité des Sénégalais. ndax sax dañoo rëccu li nga xam ne moom la ñu falee nguur mi donc loolu moo tax ma jàpp ni allah tous ces gens là vont revenir au bercail pour pour quand même euh, euh corriger li nga xam ne erreur bu ñu defoon. en deux mais mais Aliou euh, mais Aliou. Euh, cette erreur nest pas pour la corriger. c'est de voter pour la grande coalition wàllu Sénégal te te incha allah noonu lay demee. waa mais Aliou xam nga coalition la grande coalition wàllu Sénégal comme ni nga koy woowee boo xoolee coalition boobu bu passé PDS. Euh, presque amul beneen parti bu am benn dayo bi euh, ci li ma gis bu fa nekk ndax bokk gis-gis génn na foofu euh, ndax du PDS ndax PDS kese presque moom mooy moom mooy coalition boobu ndax bu ngeen demoon fu mel ni Louga est-ce que am ngeen fa benn candidat boo xam ne mën a taxaw candidat bu am doole nga dem fu mel ni Kaolack nga fa benn candidat boo xam ne tey bu taxaw lay doon Aliou loolu est-ce que li ko gën a mën a kii du bokk ñu ne si coalition bi ñi si waroon a bokk dëgg ñoo si bokkul. waaw xam nga euh, gis nga coalition parti euh, la coalition la grande coalition wàllu Sénégal boo xoolee ñu ko ñu ko composé euh, c'est des c'est des c'est un il y a un ancien président qui Abdoulaye Wade il y a également un premier qui premier ministre Abdoul Mbaye il y a un président de l'Assemblée qui avait un président de l'Assemblée mais finalement il est parti il y a également Mamadou Diop Tekki qui est un financier nga xam ne mbirum économie xam na ci dara donc ñun suñu coalition c'est une coalition bi nga xam ne de compétence et d'expérience ñooñu je pense que ñi nga xam ne ñoo ŋànk coalition bi c'est des c'est des gens qui pèsent lourd am na problème vaut mieux avoir vaut mieux avoir la qualité n'est-ce pas que la quantité te ñun je pense qu'à notre niveau nous avons une qualité bi nga xam ne ki nga xam ne kenn mënu koo naatable te dans toutes les régions ou bien dans toutes les villes yi nga xam ne euh, investir nañ fa je pense que nous avons investi ñi nga xam ne ñoom ñoo fa waroon nekk mais nag ñàkk nag dans une euh, ville dina am ñi nga xam ne on les investit mais ñi nga xam duñu leen investir loolu ainsi va la vie parce que dans la vie également euh, si on te demande par exemple cent personnes sur une liste moi je pense que il y aura un problème de choix et que ah. ñenn ñi dinañ leen jël ñenn ñi duñ leen jël te ça a été toujours comme ça frustration yi du ñàkk mais nañu jàpp ni Euh, képp ki nga xam ne localité bi nga xam ne moo la tànn ba teg la fi nga moo parce que aussi il faut il faut se dire que dans la grande coalition wàllu Sénégal du candidat bi moo moo fal boppam non du moo tànn boppam déedéet c' est la base qui a choisi ñu ne diw la ñu soxla pour mu nekkal ñu suñu maire donc loolu la affaire bi demee et puis il y avait pas de vote il y avait un consensus qu'il fallait avoir n'est-ce pas au cas où on n'a pas ce consensus c'est au niveau n'est-ce pas national de pilotage si la ñuy déterminer ñi nga xam ne ñoom ñoo war jiitu. Euh, d'accord si si mais Aliou euh, yaa ngi wax sànq euh, yaa ngi wax tamit Abdoul Mbaye. non Mamadou Diallo Mamadou Diallo. mais mais mais boo xoolee Mamadou Mamadou Lamine Diallo moomu am na xam-xam cadre la économiste bu mag la. Euh, mm-hmm. Sénégalais yi naw nañu xam-xamam Abdoul Mbaye aussi mm-hmm. cadre bu mag la kenn mënul wax du cadre waaye mm-hmm. tuddaloo ma ñu am base politique Aliou waaw mais xam nga xam nga dinaa la jox benn affaire Ablaye waat pourtant il a été président de la République et il n'a jamais il n'a jamais gagné une mairie mënu musul musul nekk maire donc affaire bi du foofu c'est-à-dire que euh, base bi nga xam ne euh, ku mel ni. Euh, mais musul gagné mairie mais ay nitam doon nañu gagné mairie. mais mom laa lay wax ni donc euh, waa effectivement nitam daan nañu gagné mairie. donc ça veut dire que. mais Ablaye Wade woon benn teg benn parti politique boo xam ne fépp foo dem ci Sénégal parti politique boobu ma fa. parti bu organisé. tout à fait mais ba tey parti bi c'est organisé ah. parti bi c'est organisé. non du ñu wax non non non xam nga PDS. PDS tey mën nañu wax ne mooy daara ju mag ji. voilà très ñii fi nekk ñëpp d'accord nañ ne PDS moo leen formé. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mais dinañu dem nag euh, daara ji leen forme dem ba mu yàgg nag au moins di manqué ay formateur quand même. non mais actuellement on a des formateurs quand même il faut pas se dire que xam nga les xam nga euh, euh, même un enseignant bi nga xam ne man si domaine bi ma xam boo ko jëlee muy commencé jàngale mais déjà il a ben premier en ses débuts dina métti mais plus que muy avancé plus que muy am expérience donc loolu la quelqu'un qui fait dix ans ou vingt ans mais kooku bokkul ak quelqu'un qui qui vient de faire deux ans donc c'est toujours comme ça donc moo tax ma ne la le parti démocratique sénégalais mënoo ko mënoo ko méngale ak benn parti tey. non méngale wuñ ko ah. méngale wuñ ko ak benn parti mais coalition wàllu Sénégal presque PDS moo fa nekk ñeneen ña fa nekk man ci li ma xam ak seen gisin xam naa ne ñu si bari bu passé PDS amuñu base politique Aliou. kon kon tu viens de confirmer tey parti démocratique sénégalais aujourd'hui dans l'échiquier politique c'est un grand parti donc. mais loolu kenn mais loolu kan moo ñemee weddi Aliou donc donc mhm. parti bu mag la kan moo ñemee taxaw ne PDS du parti bu mag wala nga ne PDS amul dayo waaw kooku de kenn du ko wax. non kenn du non kenn du wax loolu. mais mais kenn du wax loolu. waaw mais tamit du ma wax ne. PDS bii ma gis mën naa gagné grande ville yi. waaw mais kooku sa sa sa xalaat la nee naa la euh, les les les les grandes kooku c'est au niveau local. waaw c'est au niveau local les gens vont se battre au niveau local c'est tout. et puis je pense que ki nga xam ne moom la askan bi wóolu te mu te ñu ñu tànn ko mais kooku mooy diriger te nous on on est dans ce sillage et nous avons des stratégies yi nga xam ne ñu ngi koy teg. ba ba ba tax ñu mën a gagner et je pense que le parti démocratique sénégalais est bien parti la grande coalition wàllu Sénégal est bien partie quand même pour rafler plusieurs localités xam nga bu ko jël en terme de en terme de euh, benn ville ñaari ville ñetti ville c'est vrai on ne peut pas tout gagner toutes les grandes villes mais on va gagner également le maximum de villes aussi parce que loolu également yéen loolu mooy suñu suñu suñu passe-passe mais Aliou est-ce que euh, am ngeen candidat ci euh, ci ci commune yëpp ci Sénégal Non, y non, c'est-à-dire que aussi, il faut se dire que le parti est, aujourd'hui, nous avons euh, un parti euh, qui se rajeunit. Et dans certaines localités, c'est vrai, il euh, y, a, y a un problème on a on a on a rejeté leur liste certains ont été faux pros mais loolu du dara lu dul des fois il euh, y a un, manque d'expérience qu'on peut noter par-ci et par-là mais également nous pouvons comprendre qu'il y a certaines localités yi nga xam ne pour dem euh, légaliser ay papiers wala pour dem photocopier ay papiers sur le plan n'est-ce pas technologique ils sont en retard donc loolu moo tax ma jàppoon ni loolu c'est un peu difficile dans certaines zones loolu moo tax on devait faciliter quand dans certaines zones euh, mu bañ ñu ñu bañ a dugal légalisation ñu bàyyi li nga xam ne moom mooy la photocopie également euh, bi nga xam ne moom la nit ñi war a mën a déposer mais mais mais seen euh, yombalal nit ñi mais seen investiture bi ci seen mm-hmm. investiture bi bëri na ay bëri na ay ay ay frustration quand waaw du ñàkk du ñàkk nee naa la euh, euh, ça ne manquera pas parce que tey bu ñu la joxoon tey benn list de cent personnes wax naa la ko waaw ñu dara tànn cent yi mais nga am cinq cent personnes mais dina am problème dina am nga xam ne dinañu mer ça c'est évident c'est dans toutes les coalitions parti boo mënta def n'est-ce pas y mais quand même euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu choisir tamit waruñu mën a fëgg dën ne ñoom ñoo gën ñu choisirul ensemble nous devons faire bloc n'est-ce pas pour ñu mën a continuer liggéey bi et que ñu mën a gagner toutes les euh, villes et toutes les communes dont tu parles. d'accord mais Aliou nan ngay euh, comprendre wala ban explication ngay jox ci Bara Gaye bokk PDS euh, bokk ci liste Yewwi Askan Wi. waaw Bara Gaye il a choisi d'être dans la liste Yewwi Askan Wi bon man bëgguma si def trop de commentaires. Euh, il a choisi son camp, n'est-ce pas euh, Nous aussi, nous sommes dans le PRS et nous avons euh, à, travailler dans la grande coalition. Donc euh, voilà. Donc Mais Amoulen Félix, Yembal, Si on a on a une liste là-bas, il y a un certain Monsieur Gay. Euh, qui est qui est, investi, au niveau. Je pense que c'est un Massamba Gay, si je me D'accord. Qui est investi au niveau de de qui D'accord. de, de, de Yembal Sudan. waa jërëjëf euh, Aliou euh, Djiba mbokk yi moom la ñu invité ci rajo réew mi euh, FM Aliou Djiba nag moom muy responsable politique PDS bokk ci cadre yi yor lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum élection yi fële ci golf sud ci élection yi léegi Aliou. Mhm. yéen dafa mel mhm. ni ci président ablaay Wade rek ngeen di làqatu yéen wa ko waxuma yéen waa PDS mais yéen waa coalition mhm. yéen waa grande coalition wàllu wàllu Sénégal ndax làqatu ci Ablaye Wade weesuwul nga jël. couleur mhm. PDS xam ne couleur bi xale yu mhm. ndaw yi sax ñëpp a ko xam xam ne yéen ñi mhm. bokk ci coalition bi sax am na ñoo xam ne couleur parti couleur parti bee leen mag ngeen jël couleur Ablaye Wade euh, jël mboq meeg euh, tout ça euh, pour bu ko defee ngeen yombal ko nit ñi naan Ablaye Wade liste Ablaye Wade mboq meeg xeet yooyu beneen bi tamit saa su ngeen waxee daal ñaari baat ñett ba ngeen ne Ablaye Wade loolu moom lu tax dëggul leen seen bopp yéen waa grande coalition bi waaw mais Abdou Khadre <laughs> Abdou Khadre li nga wax lii moom <laughs> am na solo lool mais mais il faut reconnaître que gis nga nag euh, équipe buy dem football yi. Ah. day xool ñi nga xam ne ñoom mooy mooy les meilleurs joueurs. te jàpp nañu ni Ablaye Wade il fait partie des grands euh, euh, buteurs buteurs moo tax ñu jël ko tànn ko ñu ne ah yow yaay suñu attaquant taxawal fii nga dugal. dugal non Ablaye Wade non bokkul ci liste bi non bokkul ci liste bi. déglu ba rek bokk na bokkul mais couleur parti yom la ñu ne. non mais donc il est il est il est dedans il est parce que ku xam épi de mi nga xam ne. mais mooy làqatu bi ma leen wax làqatu ma mais mais mais dama ne mais loolu fierté la pour ñun. parce que ñun par exemple tey suñu parti la coalition parce que dañoo bind si benn circulaire ne ñun du ñu dem élection si beneen couleur surtout mais il a il a il a failli que ñu xam ne ils ont été compréhensifs xam ni le PDS c'est un grand parti. ñëw taxaw ñun ànd ak ñu avec avec avec pour quand même gagner certaines ñu ñu mën a gagner yenn localités yi c'est pas parce qu'ils n'ont pas le mérite non mais dama ne ku lu mel ni ku mel ni Pape Diop bu mu demee ba génn ci suñu suñu coalition mais kooku il faut comprendre que euh, loolu dafa yomb parce que Pape Diop n'est-ce pas il faut reconnaître que le Parti démocratique sénégalais a été très généreux avec eux et en politique il faut un certain réalisme et le réalisme politique ça existe nooy mënee comprendre le Parti démocratique sénégalais dans la ville de Dakar mënul am candidat kooku c'est impensable kooku mënuñu ko nangu sax donc ce sera la mort définitive du parti démocratique sani au niveau du. du au niveau de Dakar mais loolu mooy ñàkk bañ a mooy loolu mooy ñàkk respect ci yeneen candidats yi. loolu mooy wane ni. Euh, non Aliou il faudrait que dañuy ànd mais aussi ku xam nga ce que tu pèses. gis nga Pape il a été il a vraiment comme ni ma ko waxee rek il voulait gagner plus mais en fin de compte il est parti seul donc euh, on n'y peut rien c'est ça la loi de la politique d'accord nangu ànd ak ñun on est avec ñu remercions ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñun mooy euh, waa LD Debout waa CRD Jotna waa waa comment dirais-je Tekki waa et cetera donc euh, certains mouvements yi nga xam ne ñu ngi ko ñun. donc bu baax. parce que au moins voilà euh, voilà ils font un ñëw ci Pape Diop moomu mais li ma la doon laaj rek mooy. <laughs> ndax damay gis sañu mbokk yoo xam ne rawatina suñu mbokk yi nekk euh, Touba. te mhm. bokk ci PDS. ñoom mhm. liste bi rek la ñuy génn liste bu laay Wade baa ngi nii. Mhm. waaw loolu mooy làqatu bi ngeen làqatu ci góor gi national. mais loolu contenté la sax nit ki nga la xam. ci gannaaw seen bopp Aliou ngeen dëggal seen bopp dem ci élection yi ngeen dëggal seen bopp. dëgg dëggal bopp mooy lan mooy lan ñun ñu bokk ci parti am suñu couleur parti war a dem élection ñu présenté couleur parti bi. loolu lan lan kon ngeen demee PDS ngeen bañ a demee wàllu Sénégal ngeen demee PDS. mais non mais le PDS a toujours été avec euh, des des alliés yow xam nga ko sax depuis de tout le temps hein. Abdoulaye Wade bu muy dem ba di gagné en deux mille en deux mille hein la première alternance mais il était avec ses alliés donc Abdoulaye a toujours dit et il ne partira pas en élection seul il partira avec des alliés Abdoulaye ça c'est sa philosophie donc et il a toujours montré à l'opinion nationale te na ñëpp xam nañ ci Abdoulaye Wade donc man ànd ak parti yooyu ak yeneen parti pour man c'est une fierté ils ont confiance en nous et chacun euh, fait son son travail euh, comme mais mais mais Aliou incha allah Mhm. dama doon dégg ñu mhm. nekk ci liste yi. mais bu bu fa nekkul tamit pour man il est il parce que tey Ablaye Wade il est celui qui a fondé li nga xam ne moom mooy euh, le parti démocratique sénégalais. Ablaye Wade c'est lui qui a quand même euh, euh, euh fait vingt six ans d'opposition qui a fait douze ans au pouvoir n'est-ce pas et aujourd'hui huit ans de l'opposition donc ku mel ni kooku il est plein d'expérience nekk fa ci bañ fa nekk je pense que euh, son image plane dans le parti son Wallu Sénégal donc euh, muy direct ou indirect Ablaye Wade il est dedans il est de plein plein plein dedans. xam xam naa moom ngeen xam naa moom ngeen di campagne. bon en fait euh, man campagne Ablaye Wade ak campagne Karim Wade man euh, c'est une fierté parce que euh, sama engagement suñu engagement ñun auprès de, de du président Karim Wade ñëpp xam nañ ko. donc euh, le parti démocratique sénégalais mooy arbre bi donc euh, ëmb euh, mooy dajale toutes ces familles muy les wadis muy les caribis ñun ñëpp ñu nekk si li nga xam ne mooy le parti démocratique sénégalais mu nekk une fierté lool te Karim nekk suñu candidat te saa ne ñu koy défendre saa su ne ñu koy taxaw donc je pense que loolu fierté la grandeur la surtout que Ablaye Wade mooy coiffé li nga xam ne moom mooy parti démocratique sénégalais dans son ensemble et être dans une grande coalition comme wàllu ce n'est qu'une parce que être auprès de Abdoul Mbaye a été premier ministre être auprès de Mamadou Diallo qui ñi ñëpp xam nañ ko son son sa compétence n'est pas à à à n'est pas démontrée euh, ak ñeneen ak ñeneen donc man jàpp naa ni au sein de cette grande coalition wàllu Sénégal Euh, c'est des hommes compétents et des et c'est des hommes euh, vraiment yi nga xam ne mën nañu mën a war war mën nañu mën a man mën nañu yor réew te Mamadou Diallo mi ngi si liste Dakar donc euh, ñu bëree bëri ñu ngi si liste bi donc man jàpp naa ni incha allah cette grande coalition est pour mais yaa ngi wax Abdoul yaa ngi wax yaa ngi wax Abdoul Mbaye ak li ngeen hmm. wax ak li ngeen wan Abdoul Mbaye fii assemblée nationale. motion de hmm. censure Abdoul mbay tey nga hmm. nga bëgg a tagg Abdoul Mbaye. Alioune ma je pense que abdul mbay Mbaye euh, man dinaa ko tagg parce que en fait euh, qui connaît Abdoul mbay il sait que Abdoul Mbaye est un banquier Abdoul Mbaye ñëpp xam nañu ni sa crédibilité. et également euh, son intellectualisme donc euh, jàpp naa ni Abdoul Mbaye euh, il y avait pas de problème il était dans son gouvernement bi nga xam ne ñëpp gis nañu ni gouvernement boobu son intention c'était de liquider liquider un adversaire politique en l'occurrence Karim sa Wade comme jàpp nañu ni mënuñu liquider Pape ji parce que dem nañu bay jiñ ko ay sàcc tapis jiñ ko ay sàcc oto jiñ ko ni y avait aucun aucun aucun le budget du Sénégal dara nekk ko woon donc jiñ euh, ko lu bëree bëree bëree léegi mënatuñu ko jàpp ñu jàpp doomam tëj donc loolu c' est l'œuvre nest pas de certaines personnes yi xam ne tapis dans ce régime ñoom ñoo def liggéey bu mel noonu mais aujourd'hui tout est clair ñëpp xam nañ ni li ñu daan jàpp li ñu daan def loolu yëpp c' était c' était du cinéma parce que xam nañ di Karim Wade n'a rien fait aujourd'hui Karim sàccul dara et toutes les toutes les instances les les tribunaux internationaux ku ñu mënta dem rek Karim euh, donc euh, je pense que dëgg bi mooy. ngeen ànd ak dérangé wu daal daal ngeen ànd ak Abdoul Mbaye mi ngeen jël euh, motion de censure assemblée. man man ça ne ça ne dérange pas le PDS si d' accord Aliou. gis nañ ne Pape Diop génn na ci coalition wàllu Sénégal. Mm-hmm. docteur Ablaye ñaan gis nañ ne département Mbacké dafa berli su boppam. Mm-hmm. luy expliquer loolu. waaw xam nga euh, euh, man damay damay damay jàpp ni euh, dans cette coalition grande coalition bi nga xam ne moom nga wax ni ku mel ni Pape Pape Diop xam nga fu ñu amee problème mooy dans la ville de Dakar ñëpp gis nañ ko parce que aussi ñun ñu nekk un grand parti comme le Parti démocratique sénégal ñu war dem ay jongante yu mel ni la capitale hein <laughs> Dakar la ville de Dakar. ñu bañ ñu bañ am suñuy candidat mais mais Aliou lu tax ce serait la mort ce serait la mort yéen dafa mel ni hmm? dafa mel ni yéen respecté wu leen sax euh, alliés yi nekk foofu ndax bu ngeen leen respecté woon hmm? PDS day indi candidat am hmm? bokk gis-gis indi candidat jot na indi candidat am ah, su ko defee ngeen xool seen commission d'investiture départementale bi ngeen waxtaan seen biir ba consensus am ba consensus amul ngeen voté loolu mooy koo xam ne respecté nga say ali mais yéen PDS fan ngeen ne waaw dama ne tey boo boo boo jàppee loolu c'est parce que e-, erreur la parce que tey dans certaines communes yu mag ak certaines villes euh, su alliés ñoo ñoo diriger liste bi. lu mel ni consensus moo tax ñu diriger ko mais moo tax mais dama ne fii au niveau de de de de comment dirais-je. de Dakar de on avait un candidat euh, proposé un candidat qui est Doudou Doudou nga on a proposé parce qu'on a dit que nous avons un candidat. mais non da ngeen a proposé non proposé la da ngeen a imposé. non on n'a pas imposé on a dit on a nous avons un candidat. Pape Diop il est candidat Doudou il est candidat maintenant c'est de commission c'est à la commission nationale de pilotage moo war a déterminer loolu circulaire bi dafa de. on n'a pas imposé commission bi on n'a pas waaw du du wat a été commission bi moo ko tabb on l'a pas imposé commission la grande coalition wàllu Sénégal moo tab Doudou Wade ne yow yaay parce que Pape Diop n'était pas d'accord sur la manière dont nuñ euh, nu ko nuñ nuñ ko defee parce que keroog ils étaient tous ensemble on a j'ai écouté Diakhaté qui parlait au niveau de la permanence wax ni non kenn du leen imposer dara non kenn imposer wu leen dara on leur a dit nous avons un candidat et ce candidat c'est et c'est Doudou mais quand même commission département commission nationale bi moo resté sur ça ñoom. non non seen candidat mooy seen ñoom dañoo dañoo dox seen dox dañoo nanguwul toog ñu dem ñu ne ñoom dañuy. def seen seen liste non ah, xam nga tey seen candidat mooy Doudou Wade te force ngeen am ah. candidat Dakar ndax su ngeen ko ah. amul mooy mooy mort politique PDS. Euh, mais mais mais évidemment loolu mooy imposé de. on l'a pas imposé. Non, on ay ngeen doon def da ngeen doon def ay formalité rek. non non non mais seen bëgg-bëgg mooy ngeen imposé. <laughs> ndax yaa ne yaa ne yaa ne xel yaa non Aliou yaa ne xel nanguwul sax élection sans PDS ci département de Dakar. mais kenn nangu ko parce que aussi il faut pas être trop gourmand le le bokk gis aussi dañu leen may dafa bëre. ah yow mënoo mënuñu la may yow mënu yow sa ak sa dayoo kii mais ànd ku nekk nag dafa a xam pointure aussi nag nañu waxante dëgg waaw nañu waxante dëgg donc loolu moo indi problème Doudou Wade fan la pointure Pape Diop ancien sénateur ancien euh, président assemblée nationale waaw mais mais mais déglu ma Doudou Wade quand même <laughs> tey boo xoolee Doudou Wade tey dans ces dans kii Sénégalais foofu dans ces débats dans ces trucs ñëpp xam nañu Doudou Wade c'est un c'est un cadre et puis il c'est un travailleur il est compétent et puis nag Doudou Wade nag il ne part pas seul Doudou il part avec la grande coalition wàllu Sénégal avec également n'est-ce pas tous ses amis tous ses parents yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Dakar donc Doudou Wade il est né à Dakar et wax na il va relooker la ville de Dakar donc euh, il connaît bien Dakar d'hier et, et il veut relooker Dakar ça veut dire qu'il veut changer n'est-ce pas euh, catégoriquement la ville de Dakar Euh, mu mu mu mu jox image bi nga xam ne moom la ville Dakar war a am te jàpp naa ne allah au soir du 23 janvier incha allah euh, Doudou Wade euh, Olamé sera le maire de la ville. d' accord léegi Aliou Djiba mm-hmm. yow ñu fàttali ne yow yaa ngi bokk ci cadre yu PDS yi. Mm-hmm. mais Aliou man li ma dégg comme information yéen. Mm-hmm. yéen PDS ànd ak yéen nekkul loo xam ne lu yomb lay doon ndax yéen. bu paasee imposé gi ngeen imposé euh, seeni couleur ak euh, seen logo yooyu yéen dañu wax ne da ngeen da ngeen a yabal Saliou Dieng ci rencontre boobu nga xam ne leader yëpp a nga fa woon Saliou Dieng ñëw taxaw ne ñun PDS am nañ candidat ci ville de Dakar ñu ne leen kan mooy seen candidat ñoom ñu ne duñu wax seen candidat mhm. waaw mais loolu Aliou lan lay niru mhm. waaw mais loolu lu muy niru niruwul dara parce que Saliou Dieng c'est son rôle il a fait son rôle parce que Saliou Dieng n'oublie pas que c'est le chargé des mouvements et des structures donc euh, kàddoom si biir parti bi ça compte parce que Saliou dien aujourd'hui euh, c'est vrai que xam nga nit euh, euh, mën nga nekk ndaw mais nga nekk kilifa mais Saliou il faut reconnaître que kilifa la waaw li mu def noonu bu ko defuloon ma xam fan la mën a fan la mën a nekkee kilifa ci kanamu Pape Diop fan la a nekkee kilifa ci kanamu Pape Diop ak ñeneen ak mais dama ne kilifa kilifa kilifa sana sana c'est du si du si du si dara gis nga tey xale bu ndaw tey buy doog a juddu mu en cinq ans mën nañu xam ne kii kilifa la waaw Saliou nag man dafa mat dafa mat kilifa man je suis maa ko mag ah maa je sais kilifa la parce que bu waxee yow da ngay xam ni kii kilifa la te lu mu tànk yu mu teg tànk kilifa la teg. waaw mais mais bu ñu la laajee seen au passage maa ko siy félicité maa ko siy remercié di ko nee na jàpp parce que du yomb. waaw waaw politique moo mel noonu. les les gens vont tirer par ci par là. non laajee wax seen candidat rek non seulement waxu seen candidat ba pare yéen ngeen ne seen candidat mënut a nekk mënut a ñàkk ci ville de ville de Dakar. waaw mais mais kuy dem kuy dem guerre doo affûter toutes tes armes c'est ça le problème que s'il ne veut pas dire c'est le candidat il a ses raisons c'est mais su demee nag ba ba décliner le candidat <laughs> mais bu ñu bu ñu ko laajoon kan mooy seen candidat wala yu demee noonu au niveau du comité national de pilotage foofu je pense que c'est fële euh, ji rek léegi jërëjëf Aliou Djiba est-ce que am na yenn vi yenn communes yu ñu rejeté seen liste yenn commune nga jàpp bon euh, bon Ziguinchor ah, man moom laa gën a ville de bi waaw ville de Ziguinchor mooy la commune quoi. de Ziguinchor mais département bi dafa mel ni Toussaint département bi euh, Toussaint moo fa nekk bon am na yeneen dëkk aussi yi nga xam ne euh, voilà yi nga xam ne. léegi loolu léegi loolu kon manque d'expérience nga koy tuddee. man moo dama dama koy jàpp également euh, y a une affaire bi nu mu tudd les pièces qu'on demande pour déposer dafa dur il faudrait que ñu réduire ko surtout la légalisation de certaines pièces d'identité di jógee dëkk ba dëkk pour dem loolu rek c'est coono si yenn dëkk yi. surtout boo demee côté Saraya côté Salémata dëkk la zone dafa metti quoi waaw dafa metti. waaw ah, mais Aliou euh, mais Aliou yéen mais Thiès mais euh, mhm. nan ngeen mën a jëlee Elentine. waaw mais dëggoo ma ne la coalition la quoi. coalition booy ànd coalition waxtaan la. puis waaw ah, non mais mais non mais PDS PDS non dafa amoon taxawaay fu mel ni Thiès nan ngeen fa mën a jëlee koo xam ne bokkul ci PDS. Hmm. waaw hmm. ah, loolu moom ma mais attends attends mais <laughs> il y commune certaines communes yi xam ne on pris des gens qui sont pas du PDS ku mais boo Sam Notaire par exemple ki nga xam ne. Ah. moom mooy euh, euh, kii Mamadou Fall il est de la il est de CRD. mais loolu mais loolu ay communes ay communes yu ndaw la. voilà mais commune mais mais dama lay rek c'est-à-dire que aussi. Euh, booy ànd ak nit booy ànd ak nit aussi également da ngeen di nawle bu ñu demee ba un certain moment ñu xam ne Hélène Tine elle peut elle peut quand même xam ne kii mbër bi nga xam ne mën na gagné mais dañ ko fay teg loolu ah, parce que Hélène Tine aussi n'est pas n'importe qui dans ce pays n'est-ce pas expérience politique il parcours bi nga xam ne euh, kenn mënu ko euh, euh, ponkal lañu si ay gox mais da ngay tegay ponkal ñu mel ni ñoom donc Hélène Tine pour man il est parti pour gagner quoi et et je lui prie koy dama koy ñaanal yàlla na gagné incha allah mais Aliou dafa am ñoo xam ne dañoo njortu ne élection yi hmm. mën nañu ko dàq ndax keroog Khalifa Sall wax na loolu ndax nee na recours yi nga xam ne préfet yi def nañu ko ak sous préfet yi recours yi ñu def euh, mooy ci décision cour d'appel bi euh, rejet yooyu euh, mën naa tax élection yi ñu dàq ko. ñoom loolu lañu jortu xam nga tout est possible avec ce régime quoi il faut s'attendre à tout te lu ñu wax man dàquma ko je pense que lu ñu war a def ñun opposition dañu continuer suñu liggéey. Euh, def lu ñu war a def mais ñu jàpp suñu xel ni le combat c'est inévitable le 23 juin dañuy le 23 janvier dañuy élection donc buñ ko repoussé tamit euh, euh, je ne pense pas qu'ils vont le faire. mais dama gis benn journal bind bind rapprochement. Ablaye Wade Macky Sall et les waaw xam nga euh, <laughs> man gis nga élection buy ñëw nii façon rumeur bu ne ngay dégg quoi. waaw lu man pour man je l'appelle euh, li rumeur c'est une manière euh, pour le pouvoir de distraire les Sénégalais surtout en partie la population bon pour man loolu quoi élection buy jub si nii lu ne ngay dégg lu ne ngay dégg diw gis na diw diw def na lii mais loolu yëpp nañ ko placer si côté rumeur ak côté distraction parce que loolu day distraire population bi. mais est-ce que jàpp nga ne président Wade dina ñëw campagnal leen. ah man de jàpp naa ni dina ñëw te wax na ko woote na ne dina ñëw te incha allah dina. mais du ngeen ko noppal Aliou. Euh, ah man de je pense que Abdoulaye Wade gis nga li muy def noonu sax doxantu li muy def noonu baax na si si moom parce que sport la waw te Abdoulaye Wade rek ak population Sénégal vraiment c'est c'est de l'amour quoi et puis avec cette ce bain de foule euh, cet cet engouement des gens et des autres vraiment c'est loolu mbégte rek lay doon si ñun. et ça nous permet nous les militants à la base ñu gis ki nga xam ne mooy suñu papa mooy suñu maam et puis vraiment c'est une fierté vraiment ma koy ñaanal gudd fan ak wér waaw donc euh, gis Ablaye Wade rek si aéroport Sénégal <laughs> moom beneen affaire la surtout. <laughs> daw daw daw làqu fi ngeen di dawee làqu. <laughs> si waaw mais noo ko tuddee rek baax na làqu si sa maam wala làqu sa baay du si dara. mais mais mais mais Karim Wade. dans tout ça Karim. waaw mm. nekk Dubaï di def ay mbir. waaw yan mbir lay def nekk Dubaay jël Saliou Dieng jiital ko ñuy xool ñi ñuy investir ak ñi ñu investir. Hmm. mais tu penses que non moi moi je pense que il faut il faut il nga génne Karim dans tout ça man je pense que Saliou on lui a donné plein pouvoir. non non euh, damaa jàpp ne Saliou lu mu def Karim Wade moo ko def man Abdou Khadre euh, man loolu laa mais mais bu mais déglu ma bu ko defee tamit man pour man je vois aucun mal. waaw mais xam nga xam nga am euh, aussi. Saliou Saliou il ne peut que travailler avec Karim hein, parce que Karim aussi euh, du du caagane Karim moo ko teg c'est le président Abdoulaye Wade moom moo nommé Saliou fu nekk. waaw parce que secrétariat national bi nga xam ne moom la du Ablaye moo ko nommé moo jël Karim ci boppam il est membre de cette donc Ablaye Wade moom mooy xool ku mu neex mu tànn la dugal la si biir. mais donc moo tax ma la Saliou il a ko dënk mu doxal ko normalement. Ah, mais Aliou dafa am lu ma leen di mm-hmm. mooy élection yi passé mm-hmm. gañewu leen benn grande ville wala benn comité benn euh, commune. mu tax mm-hmm. ñuy wax. loolu laa leen di tiital. waaw mais mais <laughs> mais mais mais dans tout dans toute chose il faut il faut ñu jë ñu jàngat quoi li daloon bële xëy du ñu dalaat bi pas ñun on pour ça surtout dans le département de Guédiawaye waaw donc. non euh, Guédiawaye moom wax dëgg yàlla da ngeen a néew doole foofu ak ña nekk foofu. mais mais toogal le le soir du 23 janvier dinaa la invité suñu commune. ma ne la ñun nous sommes la mairie ñun ñooy gérer mairie bi. kañ ngeen <laughs> investiture. foofu Golf euh, ñun Nguuda Dione mooy suñu suñu candidat Nguuda Dione. kañ ngeen seen seen investiture yi. kañ kañ kañ la def suñu investiture lancement. Euh, non bon xam naa ni euh, du du du yàgg ah, parce que waxtaanee wu ñu ko wax dëgg yàlla. Euh, il faut dire la vérité bon buñ ko waxtaanee ba war a def lancement bi def meeting wala yu demee noonu on le fera et puis dinaa la invité aussi nga ñëw. mais département Guédiawaye ko ngeen jiital. Ndiogou Malick Dieng mooy mooy suñu de liste Diogo Malick euh, c'est c'est un c'est un homme d'affaires un entrepreneur aussi. waa mmh. d'accord léegi euh, il pouvait habiter dans les dans les quartiers huppés là a dit je préfère rester à Guédiawaye. d'accord euh, mmh. xam naa ne même bu ngeen gañewut ville bi. ndax gañe ah, ville bi non dañuy gañe ville bi incha allah. waaw non man damaa jàpp parce gisuma benn candidat gisuma benn candidat tey. bi nga xam ne war na mën a taxaw si kanamam man. Aliou Aliou nag. non Aliou Sall avec tous ces déboires là Aliou Sall daa taxaw mu ne gars yi dañ koy valaat non mënul nekk population bi dañ leen tourner le dos et le soir du 23 janvier tu verras que Guédiawaye a tourné définitivement le dos saal l'USAL. Et Inch'Allah, une nouvelle ère va s'annoncer, c'est l'ère de Diogo Malik Yo, comment Diogo Malik mais vous allez rencontrer parce que tu verras que Inch'Allah. c'est un homme intègre. Inch'Allah. jërëjëf kontaan naa bu baax ci euh, invitation bi. maa gën a kontaan incha allah maa gën a kontaan di la jaajëfal bu baax a baax a baax. jërëjëf ndax wala euh, dama nekkoon dama comme comme comme dama daan jàngale rek nga woo ma donc je mënu mënu ma woon bañ bañ ñëw sa émission donc euh, voilà pour ma pour ma wax li nga xam ne moom laa si xalaat voilà quoi. jërëjëf donc euh, maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu suñu président Abdoulaye Wade et notre candidat Karim Meïssa Wade di ko ñaanal euh, jàmm ñoom ñëpp incha allah te di ñaan yàlla mu ñëw benn jour maay waxtaan ak benn waaye mu ne Karim n'est pas courageux ma ne ko non Karim <laughs> c'est un parce que bu ko justice wooyee dafa bàyyi France ñëw uyu ji ni ki nga xam ne mooy justice la yow. waaw ñu ko tëjee si kaso bi bi ñu ko tëjee si kaso bi ba mu xam luy kase kaso boobu la ba ñu ñëwaat. waaw mais Karim trois ans la def kaso bu mu defee trois ans ni ñu ko génnee gis nañ ko. waaw day bañ a demaat euh, day bañ a demaat kaso. non dama ne Karim <laughs> yooyu yëngalu ko parce que <laughs> ñam na kaso dem na trois ans te kenn ko dëgg fu mu yuuxu fu mu fu mu fu mu jooy donc fu mu dama dama dama malade wala yóbbu leen ma pavillon je ne sais pas quoi Karim et puis vraiment il est à l'image de son père parce que comme li ñuy wax rek doomu gaynde gaynde la te Karim si gaynde yi la d' accord maa ngi lay jaajëfal bu euh, euh, moom mooy euh, secretaire administratif de la section PDS Golf Sud mooy président chargé de l' informel du comité électoral de la ville de Guédiawaye membre commission communication du PDS bokk tamit ci cadre PDS yi nekk responsable politique Golf Sud moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kaddu gi du Diawo Diallo ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak